dañu koy dooree ak ñi nga xam ne ñoo fare fële ca réewum États-Unis ñoom kat dañuy naqarlu li nga xam ne moom la ñu teg leader bii di Ousmane Sonko loolu sit yeneen réew yu bëree bari di ko dal di naqarlu ñu gis concert kili di Youssou Ndour moom mi nga xam ne kat mën nañoo wax ne daanaka ku nekk ci njiital Sénégal lekk lay topp jamono ji kat dal di na jóge ci waa Benno Bokk Yaakaar mënta wax na nag fa la bokkoon waaye nag li gën a wér te moo di kan moom dal di na fay jóge waaye nag li nga xamante ci ne moom la xam ne moo di dafa bëgg ànd ak opposant yi ku ci jël réew mu ànd ak yow loolee nag ñu daan naxee sénégalais yi sénégal yi dem nañ ba dal ci yeewu lépp dara du la ci ëmb bourse médiatique yi seen de patriote abonewul wul daxi xaar vidéo yi